kilifa boog nettali na ma ne. Hmm. Eh, bi sëriñ bi sanc Touba gi. Hmm. mag ñi mu fi nekkaloon. Hmm. daan leen jàngaloo Alquran sama maam jooju ñu yooyu Mouhamadou Mokhtar Mbaye ci la bokkoon. macha bokk ci Longor Mbaye. Longor Mbaye xam nga. mel na ne ah, daara mooy Longor gi ci Darou Khoudoss. la Longor waaw gi ci Darou Khoudoss mooy seen kër gi ci Touba waaye Longor gu mag ma nga ca eh, fële ca tund Mbakol man. ci diggante ah, ah, eh, wetu wetu. ci Cilmaxa ak. Cilmaxa